لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبوك التلسبكتاتر إسلام تيفي تاي نك سيرف دوك سوسيتي دا فا نيواتون اك يين اك يينين لاج يو تي ملني غنا فاتو يونت باي صلاه وسلام يين نينت صحابه نيوكو اوتو كان موي سوني ياي خديجه لاج نان لين تاميت بان بكار مو غنا ري تي اسلام بان جام يال مو غنا ماغي تي اسلام لاج نان لين تام بان سورات لا نيوي تاري شاك فاندردي يويو نيكون كاستيون يين لين اندي ñu ngi leen di digtal xaar leen tuuti ñu digtal leen li nga xamantene ne moo ci rot ci ay ci ay réponse maaleykum salaam wa rahmatullah quatre xalifa yi ababakar la ak Omar ak Ali ak usman yoy la woon waaw man xamoon naa Seydina Aboubacar xam naa Seydina Omar Seydina Ousmane ak Seydina Ali waaw Seydina Omar Seydina Alin Seydina Ousmane ak euh, ak euh, Ababakar Abubakar Sadiq Omar ibn Khattab Ousmane ibn Affan Ali ibn Abi Talib ah, man sama xalaat maa ngi jàpp ne comme isaanu de li salawaati min yawmul jumaa bobu de bar nañu koy tari ci aljuma suratul kaf suratul kaf de japp naani mom bokku na ci sari nga xam bisu aljuma moom yéen salaahu salaam daana ci soññi nit ñi pour ñukay jang bon xam ban surat la yonte bi ay salaatu wa wax ñukay koy tari chaque vendredi suratul jumaada xadijatu bintu xuwaylid de mooy doon premier soxna yonente sallallahu alaihi wasallam sallam bi mu magge yonente bi ñeent fukki eh, fukki at ak mu bari won alal trop jappale won yonente bi sallallahu alaihi wasallam biñ ko yonne mu daan ko dimbali ci alala mu ciy liggéey loolu xam naa ko ci. kan mooy suñu yaay Khadija moo nekkoon yoon soxnaa si yonente bi sallallahu alayhi wa euh, nekkoon soxnaa si bi sallallahu alayhi wa sallam soxna euh, suñu yaay Khadija moo juri tamit li ëpp si njabootu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam si li ñu euh, ki jot a gëstu ay boobu de moom. yaay Khadija Amina wala non kooku de moom fat jàpp ma ko waaw. li gën a màgg ci jaamu yi de julli laa ci xam ni moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi. moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi xanaa julli. maanu waaw. mooy asikur akbar. bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar de bokkaale. bàkkaar bi gën a màgg ci bàkkaar de shirku laa jàpp ni moo gën a màgg ci bàkkaar wutal yàlla morom. bàkkaar xanaa ñàkk maanu waaw. bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar de mooy fen fen de moom lislaam moom da koo daganul da koo araamal. oustaz yooyu nekkoon tontu yi ci askan wi indi ñu ngi ciy ay leeral. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa alihi sax sahbihi wan wala ñi ngi nuyu mbokk yi ñuy déglu ak di ñu seetaan di leen ziyaar bu baax a baax fas yéene leeral laaj yi ñu joxe woon fan yi weesu te di si doon sàkku tontuk e, jullit ñi nga xamante ne tàllaloon nañ leen suñu micro ñu indi si ay leeral yoo xamante ne wane ne vraiment Euh, lu bari si laaj yi tontu nañ ko tontu bañ ko tontu it noonu la noonu la dëppook la wér su dee laaj bu njëkk bi xalif yi nga xamante ne ñoo ñëw gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa te ñu leen di tuddee alxulafaa u rachidun loolu moom daanaka ñëpp ko tontu alhamdulillah ñeent lañ ki si jiitu mooy Abu Bakr as-Siddiq moo njëkk a toog si xilaafa gi yàggu si nag. ñaari at daanaka la sa toog ak lu tofal tuuti bi mu faatoo Omar ibnul Xataab moo ko wuutu radiyallahu anhu bi Omar faatoo Ousmane ibnu Affan moom moo ko wuutu bi Ousmane faatoo Ali ibnu Abi Talib moom mooy xalif bi mujj kon ñeenti xalifa yooyu daanaka ñëpp tontu nañ ko walilahi alhamdu bi si topp kan mooy suñu yaay Khadija. loola daanaka tamit ñu bari tontu nañ ko mooy soxna su njëkk si soxna yenent sallallahu alayhi wa sallam te yenent bi moom rek la nekkaloon mësuta am beneen soxna ba ba muy génn àdduna bi mu génnee àdduna nag si la soo ko amaat beneen soxna muy suñu yaay Sawda ak Aïcha kon Khadija mooy soxna su njëkk si soxna yenent bi te it moo ko jural njabootam ba mu des Ibrahim Ibrahim ki ne ko keneen ne ko jur ku ñu tuddee Maria al-Qibtiya mu nekkoon soxna soo xamante ne ku taxawu loolu ñu taxaw woon yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam rawatina ñu ko yónnee ba mu jugee si xunt ba daal di tiit bi mu ñëwee xadija moo ko dalal yóbbu ko si mbokkam moomu ñu doon tuddee waraqatum nu nawfal ànd ak moom te bokk na si jigéen ñi njëkk a gëm yenent ndax bi ko yenent waxee ne liñ ko yónni rek moom sa saasa la gëm moo tax yenent bi mësul dëñ di ko tagg di ko wax Euh, ngëneel li ko yàlla dencal ko rek yowmal qiyaam mu nekk suñu yaay ju njëkk si soxna yenentu sallallahu alayhi wa sallam euh, bi si topp mooy saar bi nga xamante ne dañ ko war di jàng àjjuma àjjuma ju nekk yenent bi xirtal si aw xeetam saar boobu suuratul kahfi la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ne jàng na saar bii di suuratul kahfi àjjuma ju nekk lolo dana ko jox leer ju jolli keroog yowmal qiyam wala mu jox ko leer jo xamantene ni dana ko fekk ci bàmmeelam diggante ba ko jangé ba aljuma di ci wat lolé lu wër la motax nit ki na lu aljuma ji mom su xasse ba dugg rek donte julli nañ euh, timis muy guddi aljuma ba keroog jant bi di sox na lu jëm ko fa jang am ñak ñu wax yenen sar waye sar bobé bokut ak sar bi imam bi di jang buy khutba manam buy julli julli aljuma ñaari sar yam fay jang la sa gënoon a gannaaw fatiha moy sabbih isma rabbikal ala ak hal ataak hal ataa ala linsaani hadith hal ataaka hadithul ghashiya muy suratul ghashiya ñaari sar yoy ñoo gënoon siwu si yonent sa sa bi mu daan jang si sudan juli. julli waaye nag li nga xamante nit ku nekk daf kaa war di jàng moom bés bu bésu àjjuma ju nekk loolu moom sooratul kahfi la ñaari laaj yi si des muy jaamu yàlla gi gën a màgg macha allah daanaka ñëpp a ko tontu wala ñu bëri mooy julli julli mooy jaamu yàlla ji gën a màgg ndax yonentu salaasam nee na keroog yomal qiyaam moom lañuy njëkk rek leel jaam bi bu baaxee la sa topp lépp baax na waaye bu bonee daraam baaxut am na ñag ñu tudd maanute wala yeneen ak yeneen loola jaamu yàlla ju màgg la waaye nag tolloo wut ak dégg rek mu ko jullit julli ndax li tax ñuy xam ab jullit si julliteem day fekk muy julli yeneen ci saasam nee na al ahdu alladi baynana wa baynahum solaa diggante bi dox diggante jullit ak ak yéefar mooy julli kuy julli rek moom ab jullit la waaye ku dul julli moom kooku moom nekkut ab jullit comme ni ko yenent bi leerale si xadis booba amma bàkkaar bi gën a màgg nag moom macha allah ñu bari tontu nañ ko mooy bokkaale bokkaale lu garaaw la ndax jaam bi bàkkaar bu mu mën a yóbbaale keroog yowmal qiyaam suñu borom mën na ko kaa jéggal donte sax tuubu ko si mbaaxam ak maanu ak ak yërmandeem waaye moom bu ko yóbbaalee keroog yowmal qiyaam amul dara keroog yowmal qiyaam inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yàlla lépp loo ko def si ay bàkkaar mën na la kaa jégal ba mu des ba mu des bokkaale loolu nag mooy bokkaale bu ñu yóbbaale te tuubuñ ko waaye bàkkaar moom lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy yo tuub si àdduna moom yàlla du ko koy jéggal kon bokkaale mooy bàkkaar bi gën a màgg ndax day day màbbu bépp jëf boo xamante ni ki jëfoon na ko yàlla ñu yàlla musal si bàkkaar yi bokkaale ak yeneen i bàkkaar ya loola mooy tontu laaj yi nga xamante ni moo fii jaaroon di leen xiirtal vraiment si gën a xamlu suñu diine di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam